asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. damay wax euh, ci turu titre bi nga xam ne moom laa yore ci Hizbul Haq nekk alxaid nekk le guide du parti le président fondateur. dafa jot ci parti de la dafa jot ci maanaam ñu reprendre liggéey bi. dëgg la reprendre nañ ko sax ci coordination Mamadou Lamine Sène Thiès waaye du teema leeral ko Sénégal. ndax itam nag mi ngi bëgg am ay fan ndax 2004 la woon laa ko yëngaloon dagi dafa jot ngir sénégal yi ñi nga xam ni gëm nañ ko nag ñu maase ànd ceeg man xaq jeetax xaq jeetax te man lañ ko yëngaloo moo tax kenn mën a gu ko jiite ku dul man la xaq jeetax ndax man ñi ko yëngalloo dañu settantalloo alxaqu saabitun wa amal baatulu fa zahiqun wa saafilun maanaam loolu ni ñu ko mën a firee rek ni ñu ko mën a interpréter mooy vérité moom day sax waaye contraire bi moom ak lu mu forme bi lu mu yaatu yaatoog lu mu nuru nuru nuru dara day mujj naax saay loolu mooy politique de vérité ak politique politicienne parti de la vérité nag li tax mu yombul mooy politique de vérité lay jéem mooy politique de vérité il faut nga ne yàlla nee na waaw munta ñàkk faaw nga ne yàlla nee na léegi nag dafa jot sëkk sëkk sëkk réveil am moo moo tax ma jógaat man maay xaayit bi waaw man maay raïs bi nga xamante ni bii maa ko fondé ana raïsul mu assisul xizb man maay le président fondateur bi parti maay jidd bi maay alxaidam waaw ma bëgg wax Sénégal yépp ni leen bu ñu bëggee réew mi jëm kanam mbaa ay coppite am faw ñu ñemee parti de la vérité lii kat laa ne woon mënuma koo ñàkk bañ a wax ma bëgg nag fukki région yi ak ñeent fenn fu ci nekk fu ñu déggee yi parce que l'ensemble des régions fukki région yé ñent région bu ci nekk ben enseignant ben professeur mo koy coordonné mu nekk fukki coordonnateur ak ñent waaw chaque région région bu ci nekk amna un coordinateur de la régionale mais le coordinateur national nak di Mamadou Lamine sen mo leen di coordonner ñom ñep té mi ngi ci liggéey bi kon loolu maa ngi ciy xeetam ñëpp ça n'a ak liggéey diwaanu silkul jawahir fi axbaari sarair bamba fépp parce que loolu Serigne Ousmane bu Baye Cheikh Khady mu ngi ci bopp bi président d'honneur gi ñu jox ko docteur Haroun Coumba Ndoffène ministre conseiller hmm, moom lañ ko jox comme titre honorifique mooy raïsu bamba fépp waaw def professeur ñaa muy naibam waaw muy vice président waaw bu bamba fépp kooku nag ça n'a rien ak le parti parti bi dafa reprendre liggéeyam ci sama supervision ma koy superviser waaw à distance donte dem ma ci terrain bi itam fu fi waay nekk région ba nekk wala département wala foo man di nekk wala commune boo war boo nekk rek xamal ni yaa fay war di superviser loolu daal laa ne woon mënuma ko ñàkk a jàllale Sénégal yépp nañu yëg ni parti de la vérité dafa jóg weneen jógin waaw ngir nag wax dëgg yàlla li ku li shay in ajal chaque chose en son temps wasalaam